a sangu jigéen ñi ci asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi di ndigalul cheikh mouhamadul muntaxa mbàkke moom sëriñ basiru xalif général des mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér fédération daayira maam jaara yi nekkee ci ndakaaru ndey askan wi ci njiital soxna maam jaara mbàkke bintu cheikh mouhamadul muntaxa mbàkke ñoo am mbégte di leen yëgal ak woo ci ziar bu mag bi ñu fas yéene amal ci kanamu xalif général des mourides sëriñ muntaxa mbàkke moom sëriñ basiru ñu jàpp ko samedi dëppoog le 12 novembre 2022 ci touba ñu ciy woo mboolem jullit yi ak taalibe yi rawatina mboolem membre fédération daayira Maam Jaara yi ndeyu askan wi ci njiital soxna Maam Jaara Mbàkke bintu Cheikh Mouhamadul Muntaxa ci ziar bi daañu jébalaale sëriñ bi bâtiment bi nga xam ne moom la fédération bi doon liggéey ci daara yi Maam Jaara ji nekkee ci Poroxaan mu nekk bâtiment bu mucc ayib boo xam ne dañ koo jagleel jàngalekat yi di soññu mboolem taalibe yi ci àddee ji nga xam ne moom lañ fas yéene yóbbul sëriñ bi ak képp koo xam ne am na lu mu bëgg a barkeeloo ci ziar bi nañ koo def ci numéro bi am na Orange Money ak Wave 78 2015 fédération daayira Maam Jaara yi nekkee ci Ndakaar ndeyu askan wi ñoo ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalif général des Mourides mu yàgg fi lool te ànd ak wér